ginnaaw jàkkaarloo bu mu doon amal ak taskatu xibaar yi moom jiitu Pastef di joxoñ baaraamu tuuma lu président Sall moom Ousmane Sonko di xamle ni parewul benn yoon ngir bokk ci bile waxtaan ca côté ba xalifa Sall di njiitu taxawu Sénégal ak Karim Wade pare nañ ngir wuy ji ci bile waxtaan mu mel ni rek gis-gis yi commencé wute ci bile kujjee analist politique bi di ñu indil ab njàngat ci lu ni mel. ki nga xam ne moom la ñu gën a sonnal et aussi moom moo gën a am yaakaar ci opposition pour dem am dara donc position Sonko bi euh, noonu lañ ko mën a comprendre bëggul dem jalo pour compromettre Pastef ak candidature am bon wante xalifa amul gis-gis boobu xalifa dafa am problème ci droit mënul participer tant que amatul droit am bu ñu sukkandikoo ci analyste politique bi candidat yi dañoo nekk di natt seen bopp ngir mën a yegg ci élection tab bu njiitum réew mi ñu dëgmat. opposition ak nguur waxtaan ñu nangul ko candidature am suñ ko nangulee bu demee Macky Sall mën na gagné premier tour donc moom tamit loolu lay xaar ci dialogue donc muy Macky Sall ak euh, Khalifa wala euh, Karim Wade wala ñeneen euh, opposants yi ku nekk day wure ku nekk day calculer Ousmane ci discours ba mu doon amal ñetti fan ci weerum avril le président Sall woote ab waxtaan ak ñi fare ci kuje gi ngir càmbar ak dalal xel yi boobu woote nag indi na ab jaxasoo ci ñu fare ci kuje gi Ousmane Sonko jàpp ni ay pexe moo ngir mu bañ a bokk ci candidat yi bu ñu sukkandikoo ci analyste politique bi moom di ñu xamal ni ñàkk déggoo bi ci parti Yewwi Askan bi dafa nar indi ab recomposition politique.